matinale. Ramnarek, peut-être nous brosse une petite actualité. On reste sur la caution de ex pasté Fosman Sonko, Mamadou Fofana, Simon Pierre. Simon Pierre, vous, vous restez neutre aujourd'hui Pas de commentaires <laughs> en tout cas, euh, c'est des actualités bien sûr déjà traitées qui reviennent. Euh, il est important d'en parler. Oui, bon, de toutes les façons, ce qui est clair, moi, dîner, euh, <laughs> nguur gi ca la mu génn ci li nga dans les juridictions par rapport à le Ousmane Sonko mhm. mooy du bokk ci élection du bokk c'est mhm. clair DGE Sénat mi nga peut-être mhm. on dira que Euh, Duudu Ndiir mi nga xam ne ne amee na beneen taxawaay boo xam ne bokkut ak ni ñu gisee woon mhm. gis nga après la ca mujj mhm. fu yëf yi mujj mhm. tey bu ñu demee ba CDC il faut reconnaître quand même que Ayib dafe am na droit ne bu ñu jot bu ñu ko joxee quittance nañ ko jox attestation parce que bu fekkee ne tamit jóge nañ fi nga xam ne moom mooy DGE ñu ne ñoom ñuy joxe pare parrainage parce que Ousmane Sonko bokkul ci fichier mais waa CDC xam nañ lool parce que c'est un démembrement un bras un mm-hmm. bras technique et financier de l'État du Sénégal mm-hmm. kon bu ñu demee ba ne kat lu jëm ci wàllum caution ñu ngi jàpp ne ni ñu ngi ci fichier bi te bokk ci fi nga xamante ne nii moom mooy euh, euh, euh, ci parrainage bi ñooñu nañu war a jàpp ne ne ñoom ñoo war a joxe seen caution pour mën a dem élection mais boo demee parce que foofu noonu aussi c'est un manquement te faute la par rapport ak de caisse de dépôt de consignation non caisse de dépôt et de consignation li yenn caution il nga a comme élection fa lañ ko yóbbu parce que comme j'ai dit c'est un bras financier et technique à la fois de l'État du Sénégal yenn ci mel les caution tu as vu même sur l'histoire des loyers ñi ngi naan ni ñuy jël xaalis bi di ko yóbbu cautionné foofu mhm. pour que justement nous mën régler li nga xam te ne nii moo jëm ci loyer donc un démembrement de l'État du Sénégal mais ci lu ci li nga une élection fa ngay dem pour déposer ne justement élection locale présidentielle ou législative pour participer justement aux élections mais dès lors qu'il s'est posé un débat la participation euh, euh, euh, juridiquement éligible à depuis boobu noonu boo xoolee ba léegi nii li ci ëpp mais xam nañ ni taxawaayu bépp démembrement de leta mu à part euh, li nga xam ne moom mooy la Sénat bi nga xam ne njëkkoon na jël benn dogal mais nit ñëpp dañoo ànd ci ne procédure bi nga xam ne moom nañu bàyyi ci moom nañu wax ci yoon moom nañuy topp mooy Ousmane Sonko du bopp loolu nañuy dérouler boobu ba léegi mhm. mais loolu bu amee bu ñu yónnee ay Daffé mu ñëw di indi si li nga xam te ne nii moom mooy caution Ousmane Sonko te yéen nee ngeen Ousmane Sonko mënul dem élection mënul bokk Mm-hmm. mais le DG modul won nangu ñuy jël kon li nga xamné mom moy mooy parce que après li nga xamné xam ne dañoo def faute grave. oui c'est parce que faute grave la lolo tax après ñuy retentu ko jël le chargé de communication mm-hmm. yónni ko mu envoyé ko au charbon. Mm-hmm. parce que tamit nit ki bu démé ba déposer bañ jox ko quittance lamuy japp mom moy mooy xaar attestation. léegi kay la waroon moy bu muy ñëw di déposer nga ne ko kat mëno déposer parce que gis nga DGE lu mu wax gis nga DAF lu mu wax gis nga les juridictions lu ñu wax su boba du ñu indi suspicion bii mais mais nee nañu après vérification lañu mëna xam ndax bokku na ci liste DAF ak DGE. après mais dama ne la lolu jarul vérifi dama ne la mais kon mais kon ñom la na ñuy liggéey man dama japp ne ne ñoom ils sont même au même titre d'information par rapport ak yenn yi nga xamante ni mi ngi am ci réew bi et rawatina li nga xam le cas Ousmane Sonko par rapport ak la présidentielle de 2024 mhm. ñom le DG du ñeme yëg ne ne yëguñu ne wala wa CDC ci sen bop duñ ne yëguñu ne problème bu am ci diggante yoon ak li nga xam ne moom la ñuy toppee Ousmane Sonko duñ ne yëguñu li nga xam mom mo xew ci diggante ay dafé ak li li nga xam ne DGE duñ ne yëguñu li nga xam mom mo xew Cour suprême mhm. bon donc lool yëpp mënul am ba pare Yen ngeen nangul ne nit ki jox mu jox leen 30 millions ngeen nangu ko ba defal ko kit

pour prendre une décision. Parce que actualité, ben de la Non, une question sur l'actualité. Parce que l'administration, oui, c'est une, administration. Hmm. C'est une administration. Est-ce qu'elle doit s'appuyer sur les dès, informations Non, non, non. Mais Fabrice c'est une administration. Mais dès lors que xamnañ nañ ne ñoom li jëm ci walum Ousmane Sonko gis nañ jugement yi gis nañ li ci xew lépp de gis nañ li nga xam mo xew ci digënté DGE ak Ousmane Sonko donc étant un bras financier de l'État du Sénégal. nous na xam nga xam ne moom xew ak li xew ci état du Sénégal kon donc CDC mënul ne yëgguñu ne yëgguñu ne loolu noonu amul. mais est-ce que c'est une question de procédure mais DGE taxaw na fii ne Ousmane Sonko. nekkul ci li nga xam ne moom mooy. moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy liste kii moom mooy euh, fichier électoral. Bassirou Diomaye non c'est Ousmane Sonko. comment comment lan lañ comment on peut expliquer cela. ah mais loolu mooy justement problème bi loolu laay soulevé nii. Mhm. mais mais aussi Fabrice mu la laajte question là. Ouais, non dama ne. parce que CDC. Euh, euh, non waxuma du basé wu si DGE du basé wu si.

non dès que l'actualité, na je ne parle pas de ça je ne parle pas non non ah, c'est pour ça que je parle la même mon même même même fichier non c'est un acte politique si on te donne une quittance pour ensuite te donner. Attestation. Une attestation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit avoir... Il y a un suivi. Il y a un Non, il y a un travail qui doit se faire en amont. Bala may jël ce chèque dama xam un problème da nga am ak problème ak yoon fépp ñu ne la yow mii kat munoo bokk élection mais Bala may jël ce chèque naa vérifier ba mais munoo ne da ngay jël chèque ba pare bindal ko quittance loo xam ne yow reconnaître nga ne jot nga 30 millions ba pare ne ko damay dem vérifier. waaw mais non, da ngay bind attestation wan ne ko 30 millions nga ma jox. non non non. waaw Moussa d'accord avec la ah position de Fofana. non mais quand même. j'aurais préféré man. parce que administration quand même këyit la administration këyit la mm-hmm. l'administration ne dépend pas de l'opinion publique mm-hmm. c'est des procédures administratives mm-hmm. sur la base de vraiment ay këyit yu ñu signé et des des des règlements des procédures de la loi et la loi le règlement la procédure ça c'est la loi nit ki bu ñëwé ce qui est logique ah ñëw nga kat man dama lay dalal ci ñek lu la indi dama indi won caution pour candidat tel ah xaaral ma vérifier parce que procédure amna tamit mais bo xesee ba jël chegu nit ki

il faut nous revoir les textes bind ko mu leer parce que mënul nekk texte boo xam ne ñii dañuy wax ñee rien du dëgg rien mais interprétation tout là mais du moment où ay nit ko bind ñun on a d'éminents professeurs et autres nous xamante ne nii war nañ mën bind la loi ak les règlements nous l'air très bien sur blanc merci beaucoup mais

le règlement d'accord parce que liñ loolu le mais n'y ne contesté de contestant. très bien plus on peut dans le dans le journal. oui il dit juridiquement son oui il est toujours électeur et éligible. sur la base de quoi il le dit. lui aussi quand même c'est un, un praticien du droit, il n'est pas fou. Merci beaucoup, il est 7 h passées de 51 minutes, il est temps pour nous de faire place à la revue des titres.